patriote yi si si koor gi nii ak naaj bi tàng moo ñu daaxal xam nga ñun ku doon préparé si jamono xeexe ñu naan dañuy xeexe si koor gi bu jëree ñu dagg suñu koor dem xeexi kon bu jaree ñu dagg suñu koor weer bi yëpp dem campagne dañ koy def te loolu du ko jar waaw bu jëroon koor gi yëpp ñu dagg suñu koor dem campagne dañ koy def ndax lii jaamu yàlla gu mat sëkk la mbokk internet yu Sans Limites TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen ànd ñun te euh, xam ngeen ni démb ni président Macky Sall moo ko yóbbuwoon euh, fële ca assemblée nationale daal di nañ koy voté euh, député yi voté nañ ko daanaka lu toll ci juróom jàpp juróom mband la ñu ëppalee ñi nga xamante ni ñoo contre loi d'amnistie boobu alors mu ñu fa jugee nag daanaka balaa sax ñuy daaneel séance bi ci lu ñu yëg xibaar ni le 24 mars bi mooy élection présidentielle président Macky génne communiqué boobu ginnaaw conseil des ministres wàccee ki nga xamante ni moom mooy Amadou nga xamante ni mooy Sidiki Kaba loolu yëpp bokk ci lu ñu war a waxtaanee mais ñaari dat yi a jur polémique naam président Macky Sall conseil constitutionnel dañu ko euh, maanaam laata le 2 avril bi bëgg nañ nga daal di organiser élection le 31 ak le 24 mars daanaka lu ñu rawantee bariwul mais le mars bi lu ñu mën a jàpp suñu taxawee nii loolu waral man ak Fallou ñu war def benn reportage war waxtaan ak sénégalais yi gis-gis lañ ci am campagne loolu la ñu war a waxtaanee fii ci Sans Limites TV. <laughs> non lu lu garaaw ko. jaagal jaagal jumaay romb fenn. non. damay ragal gars yi damay ragal damay ragal yi désisté. mu ne nit attan na ko quoi fu Ousmane Sonko ak jamaay dugg génn gëwuma ne keneen dana fa dugg loolu rek la ñuy xaar wallaahi yàlla mën na la ne billaahi wallaahi taala loolu daal la ñuy xaar président Ousmane Sonko ak jamaay dugg ànd ci oto seet bu waaw moom mbégte moom yàlla xam na ne gëwuma ne ñeneen dañ ko attan est-ce que campagne ànd na ak koor gi àndul ndax yow mënoo xiif ba pare di wax ci naaj bu tàng bi nga ne da ngay woor ba pare di dem di campagne loolu amul sens yow doo campagne ci koor gi mukk ci daa mel ni amuñu avocat quoi parce que ñoom lañ tooj baal lañ nag baal moom dafa baax baal moom baal moom baax na trop nit def ba la nga jéggal ko baax na ci mais jéggal bi nag doon gën a neex ñu xam ñu def ak kan moo def ak fu ñu def après jéggal bi la yomb ko nit ki nga baal ko nga moo reconnaître tooram après nga baal ko day yomb mais xëy xëy rek baal mënuñu si dara jàll na ba pare ah amuñu si dara on vit avec. finalement ñi si lor la ñoo ñàkk. loolu koy jar wax loolu koy ñoo bu duggee mooy bàyyi lañ fa la force loi bi dugg na kon ñoom bàyyi lañ fa la force mu neex lañ mu naq lañ bàyyi lañ fa la force parce que loi bi dugg na. ñaan yàlla yàlla yërëm leen xaal leen àjjana loolu da ko fi des amul leneen. kii la woon rek man dama jàpp ne. ñun moom Macky Sall moo si ëppoon intérêt ndax ñoom ñoo ko woote waaw ñoom ñoo ko fi indi ñoom ñoo ko woote kon nag dañ leen koy bàyyi rek incha allah waaw nekk ni moom gannaaw woote nañ ko ba pare après ñu xool ba xam lan mooy kii ci xew après incha allah. mais finalement Ousmane Sonko est-ce que du si gagné parce que ñu ngi ñor nii di si ay waxtu wala di si ay fan rek mu génn. non non Ousmane Sonko moom du si gagné dara du si perte dara ndax moom waxoon na leen ko démb tey dara ñëw waxoon na leen yéen a ma tëj incha allah yéen a may ubbi waaw comme to ñoom ñoo ko tëjoon tam ñoom ñoo koy moom amul lenn lu mu siy gagné ak lu mu siy perte waaw. moom mu ne nu mu si gën mais gis nañ ni euh, malgré que conseil constitutionnel li nga xamante ni sàkku nañ ko mooy président Macky saal na euh, teg maanaam dat boo xamante ni laata le 2 avril président Macky Sall ñëw ci le 24 euh, mars bi. noo ko gisee. waaw mais xanaa di jaajëfal conseil constitutionnel di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ndaxte loolu waxoon nañ ko bu yàgg wax dëgg yàlla ni Macky Sall yaakaar naa moom moo fi nekkoon di layam-layam heure bu nekk mu woote ay daje yu kenn xamul moom waxoon na ko bu yàgg-yàgg heure bi normalement waroon naa fekk ñu def suñu lépp mais nekk fii di xaw ma layam layami laa koy wax xaw ma daal mais nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bañ amee seen courage bu mat sëkk na leen na ko na jàpp mu jàpp kon ñu ngi koy jaajëfal ñooñ bu baax a baax a baax ñu leen di président Macky Sall aussi ndax date bi respecté na. non non wax dëgg yàlla du ma ko non respecté wul date bi wax dëgg yàlla bu ko respecté premier ba lañ koy kii ndax dem ba ñu suba la ñuy dem élection mu aj ko kooku moom amul lenn luñ koy jaajëfal wax dëgg yàlla moom kay moo war a sant Sénégalais jaajëfal Sénégalais ndaxte lu mu defoon noonu moo tax ñeenti bakkan génn wàññeeku si kon loolu dafa waroon na sant Sénégalais yi jéggaluwaat Sénégalais yi njaboot ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna ndaxte loolu dafa ñaaw ñeenti bakkan génn àdduna si sa décision loolu wax dëgg yàlla nit ku ko mën a àttan man yëm nga ma kon président Macky Sall li ñu koy wax mooy na jéggaluwaat Sénégal yi jéggalu njabooti ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ndax décision am moo tax wax dëgg yàlla loolu polémique ñaari date yi 31 ñi le 24 bon c'est vrai que président Macky Sall moom conseil des ministres le 24 la taamu mais polémique bi ci xaw a am noonu noo ko gisee ah ñun moom amuñu benn problème euh, la vingt quatre ak la trente waaw heure bu ñu si jàpp ba ne bii la rek ñun ñu dem ak ñoom. ñun pare ngeen pour campagne euh, euh, patriote yi si si koor gi nii. ak naaj bi tàng moo ñu daaxal xam nga ñun ku doon préparé si jamono xeexe ñu naan dañuy xeexe si koor gi. bu jaree ñu dagg suñu koor dem xeexi kon bu jaree ñu dagg suñu koor weer bi yëpp dem campagne dañ koy def te loolu du ko jar waaw bu jaroon koor gi yëpp ñu dagg suñu koor dem campagne dañ koy def ndax lii jaamu yàlla gu mat sëkk la waaw incha allah dañu nañu dem campagne yi yàlla élection war wote bi bu jotee dañuy xëdd fajar teel dem ran wote ji xaar ngoon incha allah résultat yi na ñu xëdd Palestine lañ boo tëddoon Cap Manuel campagne mu doy waar kon boo génnee alhamdulilah moom ñu ngi koy suñu tool nii moom nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg heure ñu ngi xaar rek ñu ne génn waaw na ko quoi fu Ousmane Sonko ak la ñuy xaar na la ne billaay wallaay man dama dégg ñaari date dama dégg trente et un dégg le vingt quatre dama xamul nag ban moo fi le vingt quatre bi mooy communauté dugg si koor gi ndax mm-hmm. koor faal nga ni dàq koor la weeru ko campagne bi ko di topp say oto di daw grand lii jaral lañ ko gars yi ñoo bëgg changement gars yi la élection am rek di dëkk dëkk bu nekk si jàmm ñu nekk ci leneen jóge ci étape bi dem ci beneen étape gars loolu la quoi gars yi sax dañoo sonn quoi élection dem si élection ñu jóge ci étape élection wu dootuñu wax waxu élection tous les plateaux de télévision ñëpp campagne la ñuy wax di premier au trente tous les jours xanaa nag bu ñu nekkee ci élection génn ci étape élection ah ñu ci élection fal président lañ nekk ci benn lañ nekk ci beneen état wax leneen. mais mais mais koor gi ñu ngi sànq dégg sànq benn patriote mu ne moom campagne bi jaral na leen topp Ousmane Sonko jaral na yow fajar xëdd rek wàcc. waaw kooku gis-gisam la moom la moom peut-être Ousmane Sonko jaral na ko loolu man amul waxumala Ousmane Sonko man amul policier ma jaral loolu man damay voté xam naa ko may voté man du ma dem campagne du ma dem meeting du ma dem réunion mais en âme conscience xam naa ko may amul politicien bu ma janool dox ci tali bii di kër kër non du ma ko def non xalaatuma ko ñeen ñu koy def nag du ma leen blâmer am nañ droit def ko la neexee ñu def ko ñu daw mais man moom doo bulu sax du ma ko defal politicien. kon yow doo dàq koor. ah doo dàq koor ci campagne bi. non am na ñoo koy def am na ñoo xam ne démb rek maa ngi léegi sama gars yi di wax no waa gi ay dàq koor la moom leen waaw. Sonko saa yoo xam nga Sonko. Sonko romb def kamaan ànd ak jomaay dugg fenn rek def campagne kamba gars yi dañuy désisté lu leer laa la wax boobu laay waxu caaxaan de buñ defee campagne ñuri soo ko génn gars yi dem campagne ñu bàyyi ko ba campagne normal mobiliser ay duro bopp non <laughs> midi mu jeex lu leer laa la wax midi gars yi féetee côté sénégalaise bu fekkente ne nii loolu mooy andi jàmm ci réew mi je suis pour. Hmm. mais dañu gis ni tamit euh, famille yi nga xam ñoo si ñàkk seen bakkan euh, am na ñu si àndul dañu war a leeral mbir mi. waaw loolu moo doon yoon sax loolu moo doon yoon parce que événement yi lu mu yàq dafa bëri donc di ko ñu jël effacer loolu yëpp si lépp loolu yëpp pour andi loi d'amnistie bi donc. bon pour jàmm bi moom ça c'est bon mais aussi pour leeral bi daf doon gën. waaw daf doon euh, mais euh, date élection yi président Macky Sall jàpp na ko le 24 am ñuy wax le 31 même bu dee le 24 bi moo officiel ñaari date yooyu no gisee. pour man élection du am sax ren même président Macky Sall jàppee a ah, dafa amaat ay yeneen rebondissement yu war a ñëwaat après. ah bon waaw. parce que tout tout tout à chaque fois noonu lay demee daal bu ñu waxee li ba teg bu ñu gisaa ñu andiwaat leneen teg donc man gëw ma ni que ni 2024 bi élection dina am. la faute à qui kon. tous les opposants y compris le pouvoir et les opposants ñëpp ci lañ bokk parce que opposants yi mënuñu ne comme par exemple suñu constitution candidat yi nga xamante ne ni am na si ñoo xam dañ leen jàllale suñu constitution danga dafa wax ni da nga war a mën a lire français mun ko paale parler couramment te am na si candidat yoo xamante ne ni benn candidat sax laay wax boo xamante ne ni munul lire munul écrire le français. mooy kan ah du ma du ma si jàll mais am na ñu bàyyi ko mu jàll am na si koo xamante ne ni ñu double nationalité la am ba ñu génne woon ko fi ñu bàyyi rëkkale kenn kenn ki ñu bàyyi ko mu jàll loolu yëpp dafa andi problème non dafa andi problème mais officiellement président moom moo si conseil des ministres le 24 mars c'est officiel en fait waaw même si c'est officiel man ba tey gëmuma que ni euh, ak élection dina am moom waaw gëmuma ko. est-ce que campagne ànd na ak koor gi. àndul ndax yow mënoo xiif ba pare di wax ci naaj bu tàng bi nga ne da ngay woor ba pare di dem di campagne loolu amul sens. yow doo campagne ci koor gi. mukk ci àddina man man bu woon koo sax du ma campagne lan mooy sama rôle. ma dem jour élection jot ma dem votel ki ma ma neex mais du ma dem di di di campagne non non. mais Sonko war a génn d'ici peu ànd ak ba Diomaye Faye ñu war a dox. war euh, a campagne loolu noo ko gisee. problème <laughs> bi nag foofu la. Euh, ah lu mu nekk boobu. <laughs> Ah, ni li nga xam ne dara. si <laughs> naka par exemple. parce que patriote yu si bëri sonko lañ bëgg. voilà bu ñu andee bu sonko génn na kay loolu day day beneen problème. Ah, day téye si loxo jomaaru ñu ànd campagne. waaw ah, on verra ba foofu mais man daal pour man moom foofu moom dina am problème. la ñun moom ñu ngi koy fu mu toll nii moom nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg heure bu nekk ñu ngi xaar rek ñu ne génn. waaw loolu moom kenn gëw ma ne nit attan na ko ko quoi fu man Sonko ak Diomaye dugg génn gëw ma ne keneen dana ko dugg loolu rek la ñuy xaar wala yàlla mën na la man moom Macky Sall man Sonko laa am man Sonko laa am yow ah, Sonko laa